ñëw la rek euh, si seen rubrique euh, kawdir euh, kawdir nag buñ waxee moom mooy cosaanu dëkk bi plat bi nga xamante ne moom mooy plat traditionnel bi moom la ñuy toggal ñoom nag dégg ngeen soxna si li mu wax mu présenté nee na ñu la ñuy toggal waaye soos bi nag maafe la ñu tàmbali rek ci liggéey bi soxna si ci lan ngeen toll ak fan la ñuy lan la ñuy jublu kon léegi jublu tàmbalee pour togg suñu ñeleng cosaan mhm. léeg bi nag niñ koy toggee dañuy tugg dugub ji soq ko ba mu set ñu ñu kii ko lay ko bees ko sebet ko ba mu set daldi di ko euh, dëbb ra kii ko daal am si sànqal sànqal si ñu daal di ko kaas tuuti ndox tay ko tay bu njëkk ba mu suus ñu daal euh, siyaat kaasaat ba mu tooy ñu tayaat ko dañ koy tay ñetti yoon ba mu ñor ñu xorom ko ak ndox def ci tuuti laalo pour mu xaw a kii dara tax daal pour ñu ñaqantal noonu. pour mu neexalee ko waa kon maanaam ñeleng bi noonu ngeen koy defaree léegi bu ñu jubloo nag ci li nga xamante ne moom mooy euh, sauce bi maafe bi mhm. dañuy baxal suñu jën mhm. daal di ko sëppi teg ne mhm. jàmb suñu daqaar suñu bisaab li ñuy toggee def suñu tamaate doom suñu yeet ak suñu tuuf ak yëpp daal dugal ci biir def suñu sunguf sunguf yi kii bi laa fuusal naa sama kii ba pare teg naa sama jën mu ngi baax bu ñoree damay kii raxas naa sama légume ba pare ma daal di teg sama soos pour jàmb sama sama kii sama gerte tiga dege dal di ko teg dugal sama yiso yépp def sama ajaa bi nga xam ne day saf sama togg ajaa waaw léegi nag suñu ñeleng pare na togg naa ko pare soos naa ko neex na saf na amul diwlin amul dara te kii na yomb na daal. തലയേറെ പൊട്ടങ്ക Thank you. gannaaw nag euh, bu ñu lekkee nag li nga xamante ne moom mooy ñeleng euh, euh, plat traditionnel u dëkk bi gis ngeen ko ak seen maafe ak li nga xamante ne moom mooy jënu poy kay mu nekk nag plat bu neex plat bu riche bi ñu añee nag ba pare daal di jël nag suñu ndox mu sedd guy daal di koy naan doxantu nañu nag ci biir dëkk bi gis nag dëkk bi nataalu dëkk bi waaye daje nañu ak benn góor goo xam ne ni saltige la jox nañ ko loolu nag cër ci dëkk bi ndaxte lépp luy xew rek dañ koy laaj xalaatam gis-gisam moom nag moom moo ñuy xamal dëkk mbam lan lay signifier cosaan ak aada ak religion yi nga xamante ne moom moo am fii ci mbam avant tout may wax cosaani dëkk bi ma nuyu leen agum mënuma ko wax nag ci olof ak séeréer mais mën naa ko wax ci tubaab votre présence a Mbam Mokos Inu soit capable de hâter en marchant en dandinant comme le canard. On de parler longuement, mais personne ne m'empêche pas de vous aimer beaucoup et toujours. Et prier à Dieu qu'il la bonne santé et de longues vies avec de meilleurs appareils. Mbam. Mbam waa buj la ñu buj la jóge dëkk ba ñuy wax diine bu fi nekkoon booba diine amu doon fi waay eh, fale sum ka ñuy wax comment eh, dire ka ñuy wax waxasaan moo fa jëkk a indi diine ñaari diine ñoo nekk mbam catholique ak musulman te foo gis dafa boole kaw ak cedo man mii sax maa ngi ciy ràññi ceddo yi naan sangara te bouton boo gis am naa fa quelques points ay séeréer yi kese lañu waaye ci biir séeréer yi man mi wax ak yow su ma tukulóor la te su meeni ndey bu ma ko doon compter danaa jóge ci l'empire de Gambara de Bambara mooy l'empire de Bambara suma xeet foofu xeeti ndey foofu mu musey si woon gaabu waaw waaye maa ngi nekk seereer te suma baay dëgg dëgg dëgg dëgg suma cosaan dëgg dëgg tukulóor laa seti Samba Sarr cuballu waaye ñun yëpp nag fii ñu toll seereer yi kese lañ liggéey gi day mbéy mbéy ceeb mbéy dugub ak basi et cetera et cetera ay baadoole lañu mbéy rekk la ñuy dunde napp gi mi mii dama napp napp napp ba sonn du ci bolon yi mbaal mbaal géej mbaal laaw lu nous sommes général pour jàpp jën rek nous sommes général dañu doon euh, euh, kii kii sax waaye du ñu ñoomin ka nag waaye yu ñoomin ka yi mën nañ ko Mbam est général dans tout ce qui marche dans la vie mbir làmb fii da soso làmb bu amoon kawoon am jiloo ñëw am fii Mbam village centre de Mbam fiiɗa soso lambo boreten palɗe puisque borodo sin <laughs> sin lañ ko gise te amoon nañ ay mbir amoon nañ ay mbir ju bari yongar masa semu et cetera ba ñëw ci Amadonga le le le chef de village ñooñu yëpp jegaan ñooñu yëpp ay mbir la ñoon maam jamaan buubu et cetera et cetera man man man nag coordinateur de saltiki la xëy mënuma bore gisoo bopp yi dama jàngi woon bore ñu toj kii gi ba